Not yet. التي تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بخدمة دينه تقضى لنا الحاجات اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعمل بكتابك يا أرحم الراحمين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ ngi ديكو تعمل التي leen الخليفة di ko tàmbale ci Eh, ak ñi ko jëwriñam yëpp di wàcc si ci suñu soppe nga xam ne moo jiite jotaay bi di jëwriñ ji ci Ahmed Badawi ak ñu ko àndal ñëpp ak mboolem ñu fi teew ci ay kilifa ak mboolem ñu teew ngir jotaay bii nga boo xam ne xaaj la ci bu rëy ci màggal gi yàlla yàlla nangu lépp su ko defee xam naa wax ji dañ koy tënk comme ngeen ko waxee te loolu moo ma nekk eh, ndax lu tuti lu bari mënu ci agenn ci waxin motax dan ngeen baal maaq borom xel bu mak dafa am ku ñew ci mom diko ko eh, mu ko ñewal ñu añ mu ko wajatu qalilan warsi fa aktartu minhum am lool xam na moko kon dañuy tank nuyo bi ci walu bar ci ci rafetlu waxtaan wi ak jataay bi ak ard bi ni ko doxale ak li nga xam ne làmb na ko ci ay fawaayit yal nañ ko yàlla may ñu jariñoo ko su ko defee ki nga xam ni tey moo sos lii jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa jële ko ci alquran bu wér taxawal lii kooku delluwaay googu nga jël ngir leeral ay mbiram ngir jariñoo ko mu ëpp solo yal nañ ko jëriñoo eh, damay wax sànq ci benn waxtaan ni mbirum wàlliyu yàlla dafay làmb ñaar zaahir ak baatin zaahir bi dina gëlëm loo ñu bari ba tax sax duñ jot ca baatin ba ndax baatin bi lii ci la bokk li nga xam ni mooy dundal xol yi dundal roox yi def taskiyatu nafs comme ni ngeen ko macha allah jàngalee eh, te loolu ci ëpp solo am na itam. ndax yàlla moo leen jukkale loolu faaw seen mbir barkeel ci wàll yëpp ndax dafay làmbaloo su nëbb ak lu feeñ waaye li nga xam ne lii moom lay jëriñ ci biir moo ëpp luy jëriñ ci biti kooku la mbiram dal waaye moom jàngale na lépp ci na mu waree tàmbalee ko ci tawxiid tàmbalee ko ci fiq nga xam ni mooy nga mën a jëfe sa lislaam dem ci tasawuf bu ci nekk mu am ca taxawaay boo nga xam ne bii boroom xam-xam yëpp seere nañ ko sharqan wa garban eh, amul benn werante loola ku ca dellu di ko gëstu di ko feeñal di ko leeral ñaa ngi ci liggéey bu rëy liggéey boobu nag yàlla ko yàlla nangu te moom ngeen joge waaw eh, macha allah muhaadara bi leeral na ci lu bari la ca des moo ëpp fuuf li ñu indi yal nañ yàlla may ñu jëriñoo ko ndax loolu moom tam te it moom wàccoo ñëpp نوه نعم، ان يبتلى المريد بالتوحيد والفقه مع التصوف المجيد منتهجا منهج اهل السنه مع الجماعات نجا من فتنه نجا من فتنه وبرك بعد ما خان بي مو مجوال صلى الله داني مريد بي مريد بوكا بين واخا موي كيب كو سوف جيم سي الله jullit bu nekk war nga nekk murit di wuti sa borom am ko bu sell zaahir ak baatin comme ni charia ka xam ne àndi diine mat loolu moo tax mu ni bu tàmbalee tawxid wéral ko ba mu sell nga xam ni la ca aju lépp xam na ko jëfe ko fas ko teg ca fiq bi nga xam ne mooy tax ma mën a tax muy jooxeef ay farataam ak sunnaam ni ko ko yàlla sant bàyyi lañ ko tere ni ko yàlla sant ci wàll yëpp moo xam ibaada la moo xam mu amala la te ñaar yooyu lu am solo la moom ngeen fi wax sànq mu làmb la ca wàcc ci teggin lépp nga xam ni lii da koy jaamoo yàlla lii la koy jëflante ak càkkeef ba ci boppam tekkalan ak rafetal gi nga xam ni moom la sallallahu alayhi wa sallam tontu woon jullit ca mujj ga ni ko mooy nga jaamu yàlla comme yaa ngi koy gis ndax boo ko gisul mu ngi lay gis muy tasawuf muy ihsan loolu yëpp su fekkee da ko matale def ko ni mu waree dina mucc lan ci fitna fitna nag dafa bari ndax jaamu yàlla te xamoon na nga koy jaamu fitna la jaamu yàlla awoon na ko yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn ci ay xikma mu wax ni man amida allah من عمل إلها غير الله من مش أحمد بموت يعني ما قالوا يعني حمد أي حكم له من عمل إلها غير الله فسيعلم أن لا إله إلا الله لأن كيف قال حمدك جاءهم بين النبور بدو لي يلا دينا ما تتخو بس ويستنجوا نخمن يلا رك يلا ومن عبد الله بغير سنة محمد صلى الله عليه وسلم فسيعلم أن محمدا رسول الله nee bo jamo yalla ci tegoo ko ci sunna Muhammad sallallahu Alaihi wasallam di nga toog bis xamni yalla Muhammad li yónni woon wax ju gatal ju am solo comme waxtu yi dafa xat nak dañuy gatal di nuyu ñep di leen ziar ñep di leen jot nuyoo شيخ عبد الرحمن كنت سنو كلفة سنو خليفة نير أك شيخ الحاج مامبو جبل نص عين دو أك نيغا خل نيب موي أسرابي أك مولم والي إسلام بيب أك لي نيب ورا باي خلا ديكو جفة نخلو تمرانك تلي جمانا نخ نيمان يترلون القوة الوحية ما مانكي matériel bi ñuy daw di wuti mënoo tax ñu daaneel noonu lislaam alquwa ruux yi comme ni ñu ko waxee ci ci muhaadara bi ni ñu ko doon jinjee moo tax ñu mën a jot suñu diine daaneel noonu diine yi ndax Cheikh Ahmadou Bamba bu amuloon quwa ruux yi boo ko tooy songee du dem quwa ruux yi moo ko def du matériel waaw ndax maqaamul fanaa dañuy gàttal rek maqaamul fanaa ba mu amoon nga xam ne jeex na ci yàlla tàkk ba desatu fa moom suñ bu ñu fa ñëwee ci maana duñ fa fekk kenn yàlla lañ fay fekk mooy alfanaa fillah fofu muy yeggoon tax na ba ko noonu Sonko bor bu nekk mënuñu ci dara ak nit ci yàlla yëpp la ñuy daanelee noonu yàlla yi mooy alquwa ruuxiya yal nañu ko yàlla defal ñu ngi nuyu ñëpp den leen ziar wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باسم الشيخ محمد المدني خادم الحضرة الأمرية نيابة عن شيخنا خليفة العامة للأسرة الأمرية تيرن محمد البشير منتقى التال باسمهما وكافة أفراد الأسرة الأمرية أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشاكرا ومهنئا الخليفة العامة للطائفة المريدية سيدنا الشيخ سيدي مبكي نصره الله وأيده بالصحة والعافية ورزقه بطول العمر وكافة أفراد أسرة الخديم وأهل توبة ولجنة التنظيم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وكذلك حسن اختيار الموضوع فإنني لا أطيل الكلام إلا أشكر الأستاذ الكريم الذي أتحفنا بهذا الموضوع الشيق والمهم تامة رحمة بالغ رحمة في هذا الوقت الذي في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة الروحية بسبب عدم وجود التربية الإسلامية لدى بعض الأوساط من الشباب وكذلك مشايخهم الذين فقدوا التربية الروحية فكما عرفنا أن الشيخ الخديم كان كمثال ونموذجا حيا جزا الله عن أستاذنا الذي قام بهذا الموضوع بهذا الأرض الطيبة المفيدة جدا استفدنا به كثيرا وكذلك نماذج أخرى نعرفها من السنغال كل واحد منهم قام بجاد السد قام بساق الجدي وكل ما أوتي من علم وقوة لتربية سواء كان التربية المعروفة يعني الظاهرة أو التربية الروحية الصوفية وما ونحو ذلك فعندما ذكر بالتربية الصوفية عند الشيخ الخديم رأينا كذلك ترسنا نطلب من الأساتذة التعمق في بحث آه، أجدادنا ومشايخنا في هذا المجال لأن الشيخ عمر فوتي رضي الله تعالى عنه هو كذلك إنما إذا رجعنا إلى الرماح سنرى كيف ربى تلاميذه ومريده مريدي حتى قاد بهم إلى الجهاد جهاد الأصغر والجهاد الأكبر فكان بهم في آه، دنيراي وهاجر بهم وكان أكثر من خمسة ثمانية وخمسين سنة كان في التربية وبعد ذلك اثنا عشر فقط قام بالجهاد ف رأي آه، كما ذكروا أنا لا الوقت لا, لا يرحم وإلا فقط سأشير إلى أهمية الأبيات التي نقرأ من خادم خادم من شيخ من شيخ أحمد بامبا خادم الرسول عندما ذكر في هذه الأبيات أيها الصبيان استغلوا أيها الصبيان أيها الصبيان لا تستغلوا بالهدى وبالعلم استغلوا فاستغلوا بالحفظ واستغلوا بالحفظ والتلاوة واتنبوا مجالس الشقاوة فإنه بطبيعة الحال يطابق تمام ما قول رسول صلى الله عليه وسلم فيما نقله الأبراني أن أن في الأوسط سأنهي الآن عندما ذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما تلبي الصبيان والصغار آه، جالسوا قال جالسوا العلماء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 wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen bégee nuyoo boobu nag ak mbégere moomu mu ngi jóge ci sëriñ Abdou Aziz Al Amin ci ndigalu kilifaam sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane xalifa général des Tidiane mu seq koog njabootam nga ca Tiwaawan njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp ñu ràññee ci sëriñ Babacar Sy Mansour alxaaji Malick Sy Maodo alxaaji Malick bu sëriñ Babacar Sy Sidi Ahmed Sy bu sëriñ Babacar Sy sëriñ Babacar Sy bu Cheikh Alxaaji Abdou Aziz ñu jël nuyoo boobu nag teg ko ci loxo sëriñ Bachir Abdou Qadir mu tegal ñu ko ci loxo xalifa bu tedd bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mu séddaleel ñu ko ci njabootu Serigne Touba yépp commencé ko fii nag ci rawdu rayaaxiin ci sang yu tedd yu baax yi toog fa tabaarakallaahu mu mel ni thème bi ñu waxtaanee tey mooy tarbiya tarbiya nag dañuy jëli waxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni moom la Serigne Touba jëli xarajna min jihaadil asxar ila jihaadil akbar ñu ni ko waaw yow sang bi ñun jihaad yi ñu génne li ci dee ci mbooloo li ci bëlee kenn xamul lu mu toll nga ni mooy jihaadul asxar mu ni mooy jihaadul asxar ñu nga jëm ci jihaadul akbar ñu ne ko ban mooy jihaadul akbar mu ni jihaadul nafs keroog la Sëriñ Tuubaa xam ni nit ki bala moo am li mu bëgg ci boromam am li mu bëgg ci boppam foog mu def jihaadul nafs ده تربية تربية الروح تربية النفس تلا خولي نك نونم ييغا خامني ньо جاكارلو موم مي نينتي نون نينت لاني ابليس والدنيا والنفس والهوى كيف الخلاص كلهم اعضائي محمد نك نيو مو شيخ محمود بامبو نيو فوك نيو خيخ اك نيوم بولن خيخه ak ñoom ba nërmeel leen ba am li nga bëgg yow nag doo ko def daawa doo ko woote ñi nga xam ne ñoom nga war a defal tarbiya nga wax leen ban façon tarbiya ngay bëgg a defal boo leen nërmeelee ba pare nag daf ngay jàkkaarlook ay bakkan ay bakkan an nafs al amaara bi suu li nga war a njëkk def mooy nga wéq ko mu daanu Cheikh Ahmadou Bamba wéq an nafs al amaara bi suu mu daanu jël a nafsul lawaama teg ko ci kanamam ndax al nafsul lawaama moom lay disol bu disok mom question yi mu koy jox ak ndigal yi mu koy jox mo koy jox al nafsu mutmainna bu ko joxe al nafsu mutmainna mu nek ak mom lamu mu jele moko jox nafsu radiya nafsu radiya lam fay jele moko jox nafsu mardiya mu dogo jot aya ba nag يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي متخاو نك تورني جاكالوك اي بابا باتاي وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يوي لا شيخ احمد بامبا جاكا جامار لول با مقام اي يي ما وخني بيمكو من يين سما نيابور نك كايلين لين كاي لين ما وخ لين نك لغي نان نين ديف اك بان جهاد نين دي ديف اك نان نين دي ديف شيخ احمد بامبا جيل خيمام داني رومو جهاد النفس يا اخواني فلكم غدا به الجنان كايلين نجين تخو خيخ دف جهاد النفس بغن بغي أم اجينا عجل ولد فنجين دف جهاد النفس مني ومن لم يكن لنفسه مجتهدا فإنه لا يحتوي فوائدا كيف كدف الجهاد جهاد النفس دفوكو دو جاكار دو جامار لو نجري في أك الآخرة سوف نفعل جهاد النفس بوبو شيخ أحمد بامبا ñu ni ko waaw léegi jox ñu kon njumtukaay yi ñuy jëfandikoo jihaadu nafs yow Serigne Touba mu ni xaar leen ma jox leen ko ñu ni ko ban ak ban la mu ni sumtu noppi wa juwoon tawilun koo xiif baadahu sahroon ñu ni ko waaw yooyu yan yan tegtal ngañ ciy jox mu ni noppi bokk na ci lii daaneel seytaane ونبي بغنتي ليتان يا شيطان أن يحب أحدكم أن يأكل اللحم أخيه ميتا فكرهتموه كوكو كنبيول مملا يالاي جندي كفوفو من جون طويل تقو خيف سيدنا محمد مغوى لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع دي فوق تي غودي دي دي جامو يالا كوم الليل الا قليلا كون فتبارك الله ا نجابوتام mbokam ya ci tiwawan cheikh sidi abou bakr allah ta'ala anhu dadi felu ci ci bir bi himmatin aw bi halin hadha tarbiyatan ni'mal murabbi murabbi alhaq haq yardahu mom serigne babou babakar sini rabba bila khalwatin ashabuhu alanan hatta istaqamu fa ya allah ma'na aw شيخ الحاج مالك مبوكو متدما ني على همتي فجعل الهي علية لان صرت حرا خالصا كل وجهتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم مبوكو جلسي مبوكو تعريبي مانجلين دوني وكنا كتيرم اكسانتم خمنا الوقت بيدو بخاوة خط kon da amul lu ma mën a wax lu dul yóbbanti Serigne Hadj Misri bi nekk Matam Mawlaana yëpp xam ngeen ko moom taalibe Cheikh Ibrahima Niass la moom moo yabal fii ginnaaw loolu tamit ñu ngi leen di nuyu di leen wax yóbbante Sarsara bu bu ñu ñëwee ba toog fii ba wax Sarsara aajowul muy wax lan mooy Sarsara li ma mën a wax rek mooy Sarsara sëriñ bi fa la nekkoon. ولا عمان ولد محفوظ ولا بنتيرين ولا ولا مريت من كومارسي كم لن كي وخاري أتبنى كين كي وخ سرسار دفويت سرسار دفويت سرسار دفويت السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله شكر بابو doon génne sang bi mu taxaw ne maa ngi sant yàlla loolu du baax baax mooy invité say nawle ci mbég waaye bàyyi ba naxar ñëw nga ne kaay leen sant leen ma yàlla du baax waaye nag moo janook noon bi نيكو أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد لولا لوخ ما سبا نيوتي لما تي تفتلو غناو مالين جوخي نيو خليفه الحاج ابراهيم بو لو نيا سين لو نيا سين موي بيتي Cheikh Ahmad Bamba ñaari leetara ma nga fa ak kitaabul jalaalayni bu mu joxoon sama baay ba mu ko jaale see Serigne euh, Mam Mor Jaara ma nga fa kon li ma waxoon Serigne Bachir Abdou Qadir ba mu fa ñëwee ne ko lew na seen mooy béyti mook Medina Baay nag benn lañ waaye terbiye bi ñuy wax Cheikh Ahmad Bamba dafa jaar yoon woo xam ne ñu bëri jaaruñ fa mooy nee na wa zawjatun saluhat bu doon man xasunat laay wax waaw mu ne saluhat loolu la de ku dem ca baar ba takk saf ndaw indi ko bu la juralee disket wala disko waroo wax dara kon amoo saluhat kon xasunat nga am ñaareel ba wa tawbatan qubilat ñu bëri duñ koy def yoonu murit laa ji gis ñu koy def te innama tawbatu ala allah liladina yaamaluuna suua bi jahalatin suma yatubuuna min qarib fa ulaika yatubu allahu alayhim wa kana allahu aliman waaye walaysati tawbatu liladina yaamaluuna sayiat oustaz Alioune Sall yàlla bu ne sayiat rek day ñàngal bu la suwoo rek mooy bàyyil mu dem garaawut tarbiya boobu kuy ko si biir benn policier la woon ma doon liggéey ak président Abdou Diouf ñu jël ko yóbbu ko fu wéet ekkati un million teg ko ne ko defal rapport ci diw te maa lay bu jaaree fam war a jaar ñu wàcc mu ne man duma ko def ndax man murit sadiq laa allahu akbar kooku mooy yarub cheikhul xadim benn bi mooy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñuy ay ndaw mu fekk ñu Maroc saa yu génnee rek benn waay ci gaay mi rek daal yuuxu daal di koy bàkk Serigne Saliou Mbacke ambassadeur ne ko eh, noppi waa yow siwli seen mu ne ko man murit laa ab murit du siwli si loolu loolu nag tey la war a xew ab murit bu demee Amérique na takk xar moom ñëpp xam ne murit la bu mu ab murit bu demee ba ci àgg mu ne ah ñii daal doomi Sëñ Tuubaa jeex nañu waaye ñii daal maa ngi ñoom a yem baat bu yaatoo yaatoo yaatoo la ñetteel ba mooy Cheikhul Xadim karaamam pire mooy jaaral nañ ko foo xam ne ida zakartu dalika al mabita te loolu yëpp moo ko wax te benn waay ne ma ana ana tatanoos ko yàlla bañ jëlee waayam yóbbu ko ci safara sa safara say lakke yàlla rocci sirrub lakke bàyyi muy tàkk yàlla moomu moo jël Cheikhul Khadim muy waayam ñu jam ko pont ya amul tétanos kon nañ jéem a nekk waaye yàlla tënk lool gërëm lool Serigne Isxaaqa Mbàkke bi nga xamee ne li ma séq ak moom bëri na lool di gërëm bu baax a baax magam ju baax ja dama ñëw ci fulk fa lay tëjee ne ko ñaanal ma sëñ Muntaqa mu ne waftax lanaa kulla baabin kunta faatixaw ma ne amin ñëw ba ci bunt bi dox deux mètres téléphone bi na allo ma ne kooku kan la ñàngal mu ne Béthio Thioune sëñ Béthio moo ñu yónni ñu ngi la indil aw nag ma ñawaat ci sëñ Isaaka ne ko sëñ sëñ Muntaxa sëñaan gi gaaw na lool xam nga moom léppam xaal la mu ne man ci sëñ bi nëbboo ci dara laqoo ci dara moo tax sëñ bi di la gaa gaaw a uyu kon tuuba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati du ma présenté sama bopp photo bii dama koo jënd gars yi nag ñu ngi ci ut sama dépense waaye nag bu waruñ ma waruñ ma koo jaay wasalaam rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ah mbokk yi fi teew si làmmiñu Serigne Ousmane di nati rasmi lil khilafa al jamaliya eh, ak si ndigalu Serigne mam abd Cissé Jamal, sa xadaratu jamal dañu yëkkati ay cadeau mu melni ni yi nag cadeau teranga la rek waye sax danaka matul taliqat parce que li eh, waji warona wax kon ki doon def tam bi serigne Abdul Ahad def na yëpp هل ترك الشعراء من مترنم am hal arafta daara baada tawahumi di jéggalu tamit si kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati si seen kanam jëmm yu tedd yi waaye nag li Maodo waxoon rek moo si nekk lillahi darru mujibin qaala sailuhu inna rasula bi qadri mursili xtakimi kon ñu ngi rafetlu bu baax a baax euh, thème bi nga xam ne jàll na fi tey thème bi nag dafa nekk thème boo xam ne bu am am solo la mën nañoo wax ne madaris as suufi yëpp li nga xam ne moom moo moom lañ jógoon pour def ko mooy at tarbiya ar ruhiya mooy jéem a jël nit ki sellal li nga xam ne moo di ak ruuxam te ki doon def euh, muhaadara bi leeral nag Euh, waaye dañuy wax rek euh, ne dafa am ñetti escalier yoo xam ne euh, pour tarbiya ruuxiya am fokk nit jaar si mooy li imaamul Ghazali waxoon ataxalli mooy dangay fexe ba nit ki mboolem jikko yu salte yu suufe yu nekk si moom nga dindi ko summi ko ba mu set wecc nga solal ko yeneen jikko yoo xam ne mooy jikko yu sell ñu di ko tuddee attaxalli su paree nag attajalli am nga xam ne digganteem ak boromam dootul am benn frontière bu fa am suñ borom ne kuunu rabbaaniyina bi ma kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bi ma kuntum tadrusuun loolu rek moom moo si nekk kon mbokk mi euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax Euh, di wax ne euh, sa thème bi wax dëgg yàlla macha allah daanaka amuñ lenn luñ si wax waaye kàddu barkeel loola rek euh, di fàttali rek ne jaamal ñi ko xamul bu ngeen liiree téere bu ñu tuddee Minanul Baqil Qadim alxaaji Abdoulaye Cissé borom jaamal moom lañ mujj tudd si mujjanteelu téere ba boo demee si téere bu ñu tuddee Irwa u Nadim kazalika noonu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana kon ñaari masadir yi nga xamne moy al masadir al muridiya bo fa deme mom lañ fa mujjé tuddu si téere ba kon relation jamal ak Touba relation la bo xamne taudu juzuruha ila al madil baid mun su madrasati mam Mor Anta Sali kon pour ñu ñëw fi lu jaadu la kon khalifa bi mi ngi nuyu sëñ Sidi Maxtaar di ko ndokkeel si bis bii nii nga xam ne moom la Serigne Touba waxoon ne xarajtu yawma sabti thamina asar mais lu taxoon li xidmatil moxtaar yi fi sahri safar tay nak eh, mu nek eh, magal go xamne ne delu wat fi nga xamne ne fa la commencé won te modi di bisu samedi bu tombé ak fukki fan ak juroom ñetti ci wéru safar kon magal gi magal go xamne ne extraordinaire eh, la ñu ngi jéggulu ci cadre yi bu amna lenn lu si deung wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkal wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه ونقدسه ونشهد أن لا إله إلا هو ونشهد أن حبيبه وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى كل من نهج نهجه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله خمنا ني كادو نيو لي دون نيكو بوكي ديفي نيو تي ندغلو الحاج مامبو محمد كنت ميغا خامني موم لا يالا دينك تي الطريقه القادريه المختاريه البكائيه الكنتيه موتو كينجاسان ني نيو في تي تورم جيت ديليغاسيون بي ñëw ngir wuy si woote bi nga xam ni woote la boo xam ni jullit yépp a ko bokk waaye dama wax ni mbokk mi di sëñ Abdul Ahad ci thème bu am solo bi nga xam ne def na ko man de ni ma ci gis dafa mel ni sarxa ak xaaju la goo xam ni ñu ngi ko jëmale jamono fi jamono toll tey société yi toll fi tey alquran waxoon ko démb لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ممن أسفل سافلين غو دو ما علوم تي تي بورد وانتي تي رايغي تي خيرغي تا القران واخون نيني بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ويتهيب ممن عكس مموام أشده على المؤمنين متباغدون متناحرون متقاتلون خول تاي جاكاي لي في ديف تي اي بومبو داجي جولي دي تاي خيخ بي ني خيخ تصوف تاي نيغي ديف دي تودو اي اي جوليت موتاخ ماني ملني تمبي تاي صرخه مانا اخ خاتو لا اك ووتي لا ngir wo mondu bi adduna bi ñu xam ne bu ñu buggee mucc tey ci problème yi nga xam ne moo am ci jafe-jafe yi faaw ñu delluwaat ci éducation spirituelle muy atarbiya ruhiya ngi nga xam ne Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom la jàngaloon ay saxaabaam jàngaloon ko jullit yi mag ñu baax ñi ñëw jaar gi ku ci mel ni sunu maam ju tedd ji Cheikh Ahmad al Khadim radiallahu taala anhu bi ma xoolee xoolaat benn béyt bi ma ciy rek bi mu nee kanzi al kitaabu wal xadiis wal adab waaw tey ñun ban trésor la ñuy wutiwaat te mu ni sama trésor génnul ñett yi alquran hadis ak li nga xam ne mooy tënku ci li yàlla bëgg daw yàlla bañ lii kon tey mel na ni tey solution la tey conférence bi joxe moom la it màggal gi joxe waaye fekk démb yi ci Ahmadul Xadim joxe woon na ko te loolu it ni fi mbokk yox wax sànq mooy woote gi nga xam ne mag ñëpp moom la ñu woote ودي ميتين ياسين شيخ ابو محمد كنت ويجرمي شيخ ابو نعامه الكندي كوكاي سيرينيم بي شيخ سيد المختار الكندي واي كيغا خاني موي شيخ عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى عنه موم بيموي جوخي بيموي جوخي ديفينيسيون المريد الصادق تي تيرم بوبو الغنيه للطالب طريق الحق بوم كوي واخ تي عربيه ناخ داماي باني غودل واي فومو تيجي رك مودي ني مريد الصادق دغ دغ موي كوغا خامني فومو تولو li koy wéttali li koy dundal liy suuxat xolam mooy lan mooy ki nga xam ni moom la jokk ci moom ay muraaduhu muraad bi nag bu ko gisee bu ko gisul yëpp mu ngi koy wéttali bu ko gisee mu ngi nàmp ci moom ci xool bi mu koy xool ni mbonaat di nampe ci yaayam ci xool ko rek mu reg noonu lay dem defee waaye su ko gisul mu ngi nàmp ci moom ci yi nga xam ne mooy tawsiyaatam wala wasaayaaw ay mawaisam yi nga xam ni mooy ay ndénkaaneem waaye awraad yi nga xam ne jox na ko ko mu di ko jëfandikoo kon ñoo ngi ndokkeel ñëpp di delu di ziar Cheikh sen Mokhtar al Bakki di ziar njabot mom borom Touba gi yëpp lii dal yal na ko yàlla saxal lol di len ndoké di len féliciter vraiment nga xamné li moy waré fi bép julit wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi billahi minash shaitani rajim bismillahi arrahmani arrahim rabbi اشرح لي صدري ويسر لي عمري amri wahlul من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مبك جولي نيغي لين دي نيو الوافدين من قريب وبعيد نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واخدق يالله lépp liñ fi waroon wax ci lu bax wax nañ ko surtout al muhadir al kabir alladhi na'tarifu bi ilmihi wa nabahatihi al cheikh abdul ahad jazahu llahu anna xayran ñu ngi ñaan yàlla yàlla na la yàlla may li nga bëgg ci àddina parce que thème bi nga xam développé ko euh, euh, wax nga ko fii thème bu jara wax la tey xam naa ne ñi nga xam ne ñoo choisir thème bi ñu wax thème bi nañ ko waxaat fii tey wallahi juumuñu parce que jot na ñu delloo ci li nga xam ne loolu moo amoon mooy a tarbiya ruuxiya la siyama a tarbiya bi nga xam ne suñu mag yi ci tarbiya boobu lañ doon e, jëmal taalibe yi liñ fi wax alhamdulillahi rabbil alamin dañ suñu xol bu baax a baax te ñi nga xam ne ñoo organisé alhamdulillahi yal na leen yàlla yokk yal na leen yàlla may li ñu gën a bëgg ci àddina xam naa ne li ñu a bëgg ci àddina mooy dee dugg àjjana yal na leen yàlla may ñi nga xam ne fi nekkal ci Sidi Sidi Sidi Muxtaar digg jàppale ko ci li nga xam ne loolu la Cheikh Ahmad Bamba bëggoon yàlla na leen yàlla jàppale wax dëgg yàlla àddina yëpp bég nañu ku jis ñi nga xam ne ñëw fi toog te seen kanam yu leer yi ak seen toog bu rafet bi ak ni ñu ñëwee ci bërëb bu tedd mi bu tedd bi fii wallaay xam na ne ñëpp kontaan nañ ñu ngi ñaanal eh, si Seydina Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla may ko wér njëbootu Serigne Touba yëpp gaa yëpp ñu ñëpp sant nañ leen la siyama ci ñi nga xam ne noonu la ñuy terale gan yi loolu lu jara wax la parce que asaxaaw am na lu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax wax dëgg yàlla lépp lu ñu mënoon eh, ci teral ak bernde ak euh, gàttandu gan yi ak gunge ak ànd ak ñoom lépp def nañ ko ñu ngi beral loxo nag ak Seyid Ahmed Badawi parce que li nga jiite fii wallahi eh, jiite ko yombul waaye nag yàlla moo lay jàppale képp nga xam ne yaa ngi def lu baax yàlla moo lay dimbale ñun nag ñu ngi jóge fele ci Koyle alfa ci suñu xalifa bu tedd bi mooy alxaaji Hamidou Alpha keroog bu mu paree ci ziyaar bi dafa def déclaration mu ne képp ki nga xam ne pare nga fii maa ngi la yebal demal tuuba képp ku ma déggal demal Touba nga jàppale li nga xam ne loolu la Cheikh Ahmad Bamba woote woon nañ ko dimbale nañ ko jàppale ci ci li muy liggéey yéen yëpp dem leen tuuba yàlla mooy suma seede ñi ma déglu tam di fekke woon wax yi mooy suma seede mu yónnee ma man mii mooy may porte parole kër gi ak ñi nga xamne moy délégation bima andal abou bakri Cheikh Bounana Ka mu ngi netok Jibril Ka mu nga netok ak ñi nga xamne xale yu bari ñi nga xamne jogu nañ ci kër gi ma sha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sante wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa na yàlla may dund gu barkeel yàlla na bokk fekke déwén daairatu rawdu rayaahiin def ngeen ni ngeen daan def jataay bi mel na nam daan mel yàlla na ko yàgg mel Eh, sëñ Abdul Ahad li lu la dénkoon ni nga nuko joxe amna solo man damay wax rek ne suñu de jël musa ci tarbiya ruhiya bu Serigne Touba radhiyallahu anhu dañuy xol rek ki tarbiya sëñ Muhammadu al Mustafa ba bim ko wóotooy mel ni mel ki tarbiya Serigne Fallou ba bi mu wutoo Cheikh Mamadou Moustapha mbir mi mel ni mel ngir bañ a guddal ki tarbiya xulafaa yooyu loolu mënees na cee teg bët bi mu ci noppee ki tarbiya ñi tarbiya gaay yi muy dem di dem ba ñenn ñu nekk ñañu tarbiyal ak ñoo ñañ tarbiyal lool moy jeexantal bi am ci tarbiyam serigne bi ci tarbiya ruhiya mu wax nag ne mag ña ginaaw alquran def ne qad aflaha man tazakka kon nak jogle leen daal ne ndaw ñi ni ko kima ma waxe legi ya ayyuha sibyaanu laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi staxilu yéen ndaw ñi moytu leen teel a kaalawu laxasaayu leen ba kaalawu jot ngeen dool a kaalawu loo ko may seenug ruux yàqu ngeen baal mu bëgguma guddal ndax <laughs> comme dañu ne ko nekk wax ñaari minute wax naa minute genn wàllu li des daal mooy yàlla nañ bokk fekki déwén ñu fekke woon daaw te wóote ko ren ña ca faatu yàlla na yàlla yërëm leen ñu tukk yàlla ñibbi si jàmm yàlla na yàlla defar seeni mbir nag defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الرحمة الربانية wa ala aalihi wa sahaabatihi ajma'iin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balu xaq te di leen baal xaq su fekkee xaq dox na suñu diggante di sant yàlla bu baax ci delsiwaat gin delsi fii ci Touba teewee màggal gi comme nañ ko daan ci at yi ci passé di wax rek nag ñi nga xam ne ñoo yore organisation màggal gi surtout délégation chef religieux yi leen wax ne ñun ñu dëkkee Saalum de bëgg nañ ñi bàyyi ñu xel ci ci laissez-passer yi ñuy dugal Touba ndax léeg-léeg mu xaw a jafe dugg waaw ba buñ ko mënee am foofa balaa ñuy ñëw mu gën a yomb ci ñun incha allah eh, sama contribution nag ci thème bi damay wax rek ne mag ñi nga xam ne ñoo liggéey liggéey yu mag yi ci soufisme seen liggéey manees na koo jàngat bu baax a baax a baax a baax ndax كي خدنا موي محاضر بوخنا ني سرين توبا رضي الله عنه بلا مو هوتي لو تدي تربية فكنا مو براباري نيو باري كملني سين باكي بوسو برام خم خم بورا فت بي فتبارك الله صلى الله عليه وسلم ماني nit balaa mën a deferee day deferu ki deferu ba pare mooy mën a deferee mais ki deferagul mënagul deferee deferu nag pour nit mën koo am da ngay jàng ñaari aaya xad aflaha man zakkaaha wa xad xaaba man dassaaha defer bakkan bi ci lépp loo xam ne tilim tilim la ci bépp jikko boo xam ne jikko buy tardee nit la diggante moo boromam yaakaar naa ne dana tax bakkan bi mën a sell benn aaya boo xam ne ki ma jiitu wax na ko muy wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa an il hawa li ma ci yitteel mooy wa naha nafsa an il hawa ونهد نفسه عن الهواء كخمني لكي تردل بدو منا أم نعم، تربية روحية خالصة موي بكن بكن بو بكي تردل لك لي أبوشي لكي تردل موي بدنيخ غور غور لو بقاجل بكن بي أبدنيخ نين كو غور غور يالا نين كو غور غور لو قاجل بكن بي أبدنيخ نخمنا فإن الجنة هي المحوه fa inna jannata hiya al-ma'wa nag ki góorgóorlu ba amatul rëy amatul kiyaan amatul soxor amatul mbañeel du fen du jëw du rambaaj te fu mu toll mu ngi tudd yàlla kooku ci aljana la dëkk ndax fa inna jannata hiya al-ma'wa kooku gëm yàlla am dana hegg ci ba lépp lu yàlla dogal ci moom mu gërëm ko gëm yàlla am dana hegg ci ba lépp dundam bànneex lay doon gëm yàlla am dana xegg ci ba diggante moom boromam yëg-yëgam àjjana lay nekk ci moom bon kooko fa inal jannata hiyal maxwa bon dana am solo lool pour ñu xam lan mooy lan mooy bakkan bi nga xam ne moom lañu war a éliminer ba mën a dem ca yàlla kooku nag ci la mag ñi taxawoon ñu liggéey ci sofi bi ña ña àndoo ñoom góorgóorlu nañ ba defar leen ba fuñ leen i xebal mu sori sori ak kuñ ma fuñ mën a nekk lu mu xat-xat dara du leen soppi du soppi seen jikko du soppi seen melokaan te nag la ko waral mooy roy gañu roy ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yonent bi waxoon na ne pour ngeen mën a defal seen seen bakkan yi ñetti benn xadis bu am solo la bu yaatu lool muy alkafaaraat wa darajaat waaye biñ ko laajee lan mooy darajaat dafa ne ngay julli guddi الصلاة في الليل والناس نيام غير جولي قد تفك ني نياغي نلو دي جوك سي قد دي جولي تفك ني نياغي نلو نانا بوكل لول بوكل لي لي دفر بكان يالا وقت من حديث القصي ني ما سال العبد يتقرب الي بنوافل الخيرات نوافل الخيرات موي لب لو خامني داي سوري بكان بكار. tey jegeel nit ki yàlla lépp luy soril bakkan bàkkaar tey jegeel nit ki yàlla nawaafil xayraat la waaye nag heure bu ci nit ki góorgóorlu rek incha allah mën a nekk abdan xaalisan boo xam ne rooxam day deferu jëmmam deferu ndax roox bu deferee bu deferoo rek jëmmam deferu bu yàlla na yàlla fayal ñi mag ñi te yàlla na yàlla xiir ñi ci ñoom ba nga xam ne taxawaay biñ taxawoon ci defer nit ñi danañ góorgóorlu ba defer suñu bopp ba ku ñu yaakaar topp ñi ñu mën koo defer yàlla na yàlla def suñu dégg ak topp def suñu yërmande barke ñi sant ñi nga xam ne ñoo organisé liggéey bi incha allahu rabbi muy Ahmad Badi mi ko jiitee اكسين ما مور فتبارك الله صار ميو خدم واج تالا جتاي بي اك ني اند نيم نيب تي ليغي بي بروم خم خم ليغا خم ني نيو ديف وقتان اك موجود راوتي دا محاضر بي ليغا خم ني وقت يالا لي سين تونتي موم غيس نكو نيغو سانتي دو غير دي بارو اخ موك ييب دي غرم نيب دي غرم وانتو بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين summa salaatu wassalaamu ala man ursila rahmatan lil aalamiin wa ala aalihi wa ashaabihi wa sallam alhamdulilahi rabbil aalamiin mbokk julli yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jéggalu bu baax a baax a baax di indi nuyoo fi cheikh abdul wahab seydi bun alfa mani seydi bun abdul wahab bun ahmad bun yazid koku lañu indi fi ziyaram ak nuyoom wax deug yàlla di jëggalu bu baax ndaxte ni daqaay yi nga xam ne ñoom moom ngeen joxe li ma préparé woon ak li mu ma yónni dafa xaw a gudd tuuti li tax loolu dama leen di expliquer tuuti li tax loolu ndaxte moom alaa xam dafa xaw a yàgg fii nii te bu ma fàttewul tey la première may jël kaddu fii nii depuis daanaka juróomi yoon maa ngi ñëw fii tey la yàlla war sëgal loolu di kontaan bu baax ci loolu waaye di sant di gërëm li ñu jot a dégg fii ci xamxam xam ti mu xaadara bi te wax na ko ci waxtum loolu lu tumaaranke la ci waxtu wii nii euh, ma ànd ak fii ak délégation boo xam ne mu boole ma ak samay mag jóge Dakar ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ma ñoom ñoo ma yëkkati yónni ma fi te macha allah ñu bari foofu di xam ngeen ci alquranul karim ñi fa nekk di jàngale alquran ñoom ñëpp ñoo mu boole indi jox ma benn kàddu ma indi fii ci béréb bi ndaxte xam nañu béréb bi béréb xam-xam la te loolu dégg nañu ko fii waxtu bu ñu ñëw fii rek ñu dégg euh, benn darsu bu bees boo xam ne nit ki waxtu wu ne maanaam loolu war na ko war na ànd ak darsu boobu loolu moo tax li ñu préparé woon ne dafa xaw a tu ci ni bokkoon na ci bokkoon na ci délégation Benno Sarif mu ngi ci biir délégation bi waaye li ma mun a wax rek léegi tuubaa lana marhaban ya maasara nujaba لقد تقابلت الأرواح للبشرى بمركز الغوث المختار مكة بلي نئم الخليفة في الدنيا مع الأخرى كفاك أحمد خديم المصطفى سندا ومتبى من دعاه ربه وسرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جليلي ñu ngi leen di nuyu ci turu union musulmane du Sénégal mooy mbooloo moo xam ne ñu ngi ko sosoon 1988 te booba lañ ci jublu woon mooy ubbi ay daara alquran ubbi ay école arabe fexe ba jullit yi taqaloo miinante xamante ñu organiser ay conférence ak i causeries ci biir Sénégal ak biir Gambie yëpp yàlla defal nañ ci sutura lu ci bari liggéey nañ ko waaye yàgg nañ fi ñëw itam bii mooy suñ ñeenteelu yoon ñu itam ñi sant yàlla nag bu baax ci li ñu fekkee tey te yàgg koo fekkee ci rafet gi mu rafet ak baax gi mu baax e, ki nga xam ne nag moom la yàlla jiital ci kër gi ñu ngi koy jiital ci nuyoo bi mooy sëñ di Maxtaar di rafetlu itam taxawaayu sëñ Bass Abdou rafetlu nañ liggéeyam daayira yi yëpp yi nga xam ne ñooñu dalal fa ñu nekk la nekk ñoo ko fa def ak daayira bi organiser lii ak mboolem daay yi ñu xamul yëpp ñu ngi leen di siyaar di leen ndokkeel ci bis bi te bis bi bis bu rëy la bu màgg la bis la boo xam ne jullit yëpp a ko bokk ñu suñ boo ko seetee ñun siñ Sidi Maxtaar ñu la ñëwal union musulmane du Sénégal moom bi mu ñëwee dafa wax ne damaa bëgg jullit yëpp nekk benn bëggatuma dégg benn xaajaloo dox ko wax ko ba yàlla dimbale ko ca ba may ko ko kon ñu ngi gërëm di sant sii Sidi Maxtaar boole ko teraanga yi nga xam ne mu ngi koy defal doomu soxna yi kon sëñ Sidi Maxtaar ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di ko ndokkeel yéen ki nga xam ne moo doon def thème bi nag rafetlu nay waxtaan wi kontaan nañ ci yal na yàlla wàgg euh, guddal fanam ñi fi teew ñëpp yal na leen yàlla sàmm yàlla yàlla barkeel xam-xam bi ci biir waxtaan woowu jël nañ ci lu bari ci ay jikko yoo xam ne yu rafet yoo xam ne Seexul Xadiim def na ko man am na benn boo xam ne dama ci mooy ci ne Sëriñ Tuubaa tarbiya na foofu ruuxam tarbiya boo xam ne jëriñ na Sénégal jëriñ àddina bi yëpp mooy ci wàllu julli mooy keneen ba ko góornóor wooye ci bis bii tey ñiy màggal ñëpp tiit ku buur mosoo woo surtout biiru tubaab ñëpp ay tiit ñëpp jaaxle ñu yóbbu ko bureau borom ndar gisul borom ndar faalewu ko yëgul na sax mi ngi bureau borom ndar mu kàbbar julli fa ñaari rakka loolu tarbiya roxo yee moo ko ko may te loolu def na ko ci njabootam fonk na julli fonk na jaamu yàlla tabax jàkka yi rafet nañ ba ci rafetlu nañ sax jàkka ji ñuy jullee ñun bu buñ ca duggee rek dañuy rafetlu julli ba rafetlu lépp kon ñu ngi gën a doolee gërëm njabootu Serigne Touba ci mbooleem xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi koy def ñun nag bi ñu ñëw dañuy ànd ak suñ benn mbokk membre la ay daara la yor di jàngale di tarbiya eh, borom xam-xam la eh, taalifoon na aw way waay comme moom itam dafa xat léegi من ma wax moom mu taalif way wi ba euh, euh, mu jàng way wi day xat waaye أهل هذا المغاني لقد جئنا والقلب في هيماني هيماني سلام أهل طوبى سلام سلام ما تعاقب الملواني نزولكم زيارة حب مشوق إلى لقاء الأحب أحبة ذوي المعاني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 أنا عبد الله المكي مريد شيخ محمد بن أحمد مسكي الذي هو مريد شيخ سيد أحمد بن اسمه الديماني الذي هو مريد شيخ محمد بن خادم رسول الله عليه بآله وصحبه صلاة الله تبارك وتعالى وسلام الله جئت هنا لأقرئكم السلام من الشيخ محمد بن أحمد مسكي يقرئه للخليفة العام للطريقة المريدية ومنه إلى جميع المريدين وأسرته للشيخ محمد بن ورضي الله عنه ويدعو لكم بالخير وقال إنه عاجز تماما عن المجيء إلى طوبى والحمد لله تجاوز ثمانين وأنه يطلب منكم المدد والدعاء ذلك بالنسبة قبل طلب مني شيخنا الشيخ مبكى عبد الرحمن أن أقرأ قصيدة ولكن عندي مداخلة قصيرة جدا هي آه، آه، الشيخ محمد أحمد مسكي هذا كتب كتاب اسمه كرامات شيخ مدبومبا وبعث بنسخة منه إلى شيخنا الشيخ محمد المرتضى بن الشيخ أحمد الخديم خلال زيارة له إلى موريتانيا وسبحان الله عندما جئت بالنسخة كان الشيخ عبد الأحد هذا بن شيخنا عبد الباقي بن شيخنا مصنبة كان حاضرا ولا غرابة أن يتكلم في التربية من جمع بين الشيخ مصنبة والشيخ عبد القادر والشيخ مبكبوسو آه، بالنسبة لكتب التصوف فخاتمتها وخلاصتها ومن أراد التصوف وأراد التخلي وأراد التحلي وأراد الترقي والتجلي والتحقق والتخلق فعليه بكتاب من بكتاب من الباقي القديم للشيخ لشيخنا محمد البشير بن شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه فهذا الكتاب هو خاتمة التصوف حقيقة ولن يأتي كتاب بعده يبلغ مقامه إلى يوم القيامة في التصوف وكما أن الله تبارك وتعالى ختم الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا على أن يخلق وأن يبعث نبيا آخر لكنه لم يرد ذلك فلا يأتي إلى يوم القيامة ولي يبلغ مقام الشيخ أحمد بن رضي الله عنه ولا ورد يبلغ مقام ورد شيخنا أحمد بن رضي الله عنه فقد جمع الله له فيه بركة جميع الأوراد المتقدمة ومن أخذ به فكأنما أخذ جميع الأوراد كما قال الشيخ محمد البشير في كتابه في تأليفه عن الورد المأخوذ إلى أن يقول فهاك ما من نظمه سطرت لي قلت ما فاق به الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني إلي قلت ما به أبو الحسن فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التجاني فاق وكنت لي بالمارجاني عليهم الرضوان والسلام كما بهم قد انتفى ظلامه شيخ محمد البشير هو ابن الشيخ القديم ومريده في نفس الوقت كما قال الشيخ محمد البشير هو كما قال الشيخ محمد الفاضل بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي يحظى بخلق عادة فابناء الشيخ وأحفاده كلهم مريدون قبل قبل أن يكونوا أبناء له آه سأقرأ قصيدة لشيخنا الشيخ أحمد بن رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل من لم يعلم بأمر كاتب هذه الحروف سلام لائق به أما بعد فإن كاتب هذه الحروف لم يظلم الله تبارك وتعالى ولم يظلم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يوجه إلى أحد بعون الله تبارك وتعالى وبجاه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم باطلا منذ عقل فاليوم يريد أن ينبه كل من لم يعلم بأمره تنبيها لا يكون بعده شك الله تبارك وتعالى ربي وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيي ورسولي ووسيلتي إلى الله تبارك وتعالى والقرآن دليلي وهداي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والله على ما نقول وكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وقرة عنا وجنتنا وجنتنا ووسيلتي إليك اللهم مد يدي لغير ربي بالنبي من قادني في سفري وطنبي حيلولة بيني وبين ما أحب عصمني ربي مما لا أحب مد وسيلتي إلي رطبا منه جنيا وعدوي قرطبا محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي درجتي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله إلى إله الله والرسول مع صحابه أملت سوري لم يخف كون أهل بدر الأسود مزحزحين لسوى نحو الحسود من همني بما يسوء أو يضر ولم يتب فذاك ذو كد وضر لين للقلوب رب العالمين ولسوى ضري يسوق من يمين إذا كتبت اهتز عرش الملك واهتز بالتسبيح كل ملك زنت مكاتب تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا مد لي الله بحرمة النبي ما لا يراه أقرب أو أجنبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وختامه مسك آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين